asalaamaaleykum bokki jullit yépp fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew noo ngi leen di yëgal wàcc liggéeyub sëriñ Mamor Mbàkke moom sëñ Fallu doonoon jëwriñ ji sëriñ bi dénkoon lépp lu jëm ca daara yi alxuraan yi tam liggéeyal ci sëriñ Tuubaa liggéeyal bu rëy a rëy sëriñ taxa seere ko gërëm ko moom ci boppam mu yor ay daara daa jàngaleel boppam wutit ñu koy jàngaleel boole ci sonn lool ci alxuraan bëgg lool alxuraan doon tali taaliba Serigne Touba bu dëggu ci moom bu ko bëgg bu ñëpp seere loolu ci moom ko nag waa daara bu kenn des foo waay mën a ne na ko wàccal alxuraan taaliba bu nekkit foo mën a ne loo mën ci xasida yi Serigne Touba yi na ko ko jàngal mbokkum jullit mu ne foo mën a ne na nga ko fàttaliku ci ñaan ñeent fukki ixlaas yu sell yu ànd ak bismillahi rahmaani ak loo man ci ñaan rek nga defal ko ko suba ci onze heures lañ koy jëbal borom.